way borom kaala googee waral kaala yi ku kaala wooti na koy sant tey borom dalli karbat ya moo tax ba nuy maraaki su tey ji di sant aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ni euh, ñooy bàyyi xel Wilaya TV yëpp euh, ñu ngi leen di nuyu tey ñaanal bu baax Cheikh Mamadou Mountakha sunu borom dolli koo sàmm ba naa li mu naa lépp ci liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul yàlla subhaanahu wa taala may ko kattan gu mu ko yeggalee te maandu ko taalibe yi mbokk yi comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen at mu jot kenn ku ne xam ni ñu ngi ci waajtaayu bés bu màgg di bés bu tedd muy bés bi nga xam ni eh, ci la Serigne Touba Xaadimu Rasul woote ci ñu santale ko boromam muy màggaluk 18 safar kenn ku ne xam ni eh, comité d'organisation bi nga xam ni moo yore màggal gi waay itam Euh, la fédération des groupement religieux et culturels du cible de Cheikh Ahmadou Bamba ñi nga xam ne ñoom itam lépp lu jëm ci euh, toggal gani Serigne Touba xari Rasuul yi ak héberger leen ci kër Serigne Touba ñoom ñoo féetewoo ci wàllu woowu mu ci résidence Xadimu Rasuul bii nekk ci jumaa ji waaye itam ci résidence Serigne Touba bi nga xam ne ma nekk fële ca Daaru Manaan euh, wilaaya yi ña nga fa di dalal gan ñi tey. di tombek fukki fan ak juróom-benn ci safar. màggal gi des ñaari fan euh, wilaya nag mën naa ni démb ba tey ñu ngi fi ci kër Serigne Touba yi commencé di dalal gani Serigne Touba yi euh, ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen at mu ñe kenn ku ne xam na ni du ñu daj benn yoon ci di leen wanale ak fi liggéey bi toll ci wilaya TV ak mboolem plateforme yi nga xam ni am nañ ko muy ci wilaya TV ci YouTube bi officiel waaye tam mën ngeen ñu topp ci Facebook bi ci wilaya TV. màggal gi nag ren fas nañ yéene ci mboolem résidence yi suñu ay ndaw nekk fa di séddoo ak yéen jamono bu nekk la fay mën di xew. en temps réel ngeen di koy am en direct ci Wilaya TV mën naa ni fële ca Daaru ma naan euh, soxna Ndeye Fatma Ñaan moo ñu fa nekkal moom itam di wanale leen ak mboolem la fay xew ci xeetu bernde waaye tam ci gani Serigne Touba yi nañu fay ñëwee ak délégation yi nga xam ne danañ fay dugg ba mën a xam seen yëg-yëg ak seen i réaction ci màggaluk Serigne Touba Xaadimu Rasuul fii itam ci résidence bi nga xam ne moo jàkkaarloog juma duñu ay techniciens ñu ngi fi muy Serigne Mbacke Fall ci cadreur yi waaye itam ànd fekk ak reporter ku mel ni Baye Mor moom itam fas na yéene mbooleem loo xam ne rek dafiy tukkee fii ci résidence Serigne Touba Khadim Rasoul bi jàkkaarloog juma ji ngeen koy am waaye itam l' ensemble des cuisines yi nga xam ni moom la wilaya am muy kenn ku ne xam na yàgg nañ ñoo ànd ak yéen ci ñoom muy soxna Fati Xarilo muy waa ñu Euh, Cuba Babu waa ñu soxna May Mbacke Mouhamed waañu soxna xari mi nga xam ni mooy defar cere yu yaañ ji ci jëm ci gan Serigne Touba Xadim Rasoli ak waañ ñu nga xam ni mooy waañu soxna Biga Ndiaye nekk fële ca résidence Xadim Rasol bi nekk ci daan Daaru Manaan euh, foofu nag fas nañ yéene lépp lu fay am muy cuisine yooyu fas nañ yéene lépp loo xam ne rek dafay am ci xeetu bernde kenn ku ne xam na wilaaya ak ni mu yànje ci bernde lépp lu fay tukkee rek ci xeetu bernde danañ ko séddoog yéen bu ko defee ñu xam euh, wilaaya nan la taxawoo gani Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci màggalu 18 safar édition 2023 waaye itam yemook atum 1445 ci gàddaay gi kon nii la ñu fas yéene ànd ak yéen ren. ci màggaluk Serigne Touba Xaadimu Rasuul fas nañ yéene daal lépp loo xam ne rek luy tukkee ci màggal gi la du leen raw ci biir Wilaya TV ni lañ ko fas yéene ànd ak yéen ba 20 safar incha rab bi ci biir Wilaya TV kon ñu ngi leen di jox dig daje ci kanam jaa ngeen jëf.